bi mu xamanteeg Steven Seagal ba mu wóor ko ne kii dafa am problème parce que Steven Seagal moom moo ma ko nettali man fekke wu ma ko neen Steven Seagal dafa feebaroon feebar boo xam ne daf ko jaaxaloon fu ne mu faj ko fa euh, nee na ba Steven comme xam nga moom dafa je crois bouddhiste la mu Habib d'après li ma Habib waxoon euh, dafa demoon ba am ay superstition di xalaat est que yàquñu ko liggéeyuñu fa ñoom dañuy gëm yooyu ayib nee na bonjour ma yóbbu ko sëñ Saliou nee na bi mu ñëwee wax ko sëñ Saliou